languk GDC gi eh, ci njiitalu njiitalul Mama Kandé daal dinañu fësal eh, seenu rek eh, ànd ak ki nga xam ne mooy farabu KMC di Talib Ahmed Bensouda ngir jàppale ko ngir rek mu doon mu am ñaari kay maanaam rek si kon taam ci rek foofe ci KMC ñoom nag ñi ngi fësal loolu ci rek ab yëgle bu ñu génne jaarale ko nag ci seen xëttu Facebook ki nga xam ne nag moo ko daal di yëgle bokk na ci ki nga xam ne moo yor seen kàddu gi di honorable Abdoulaye Diallo moom mi yor rek di GDC gi daal na nag bind xamle nag ne ñoom si euh, euh, dañu rek di loos maanaam rek ànd ak ki nga xam ne moo di mayo Talib Ahmed Bensouda ngir rek jàppale ko mu daal di rek am ñaareelu kay maanaam rek si kon mandate ñoom nag ne na ñu fu ñu rek wéer li nga xam ne nag moo di loolu ginnaaw ba nga xamee ni nag am nañ ci ci ndigalup kii nga xam ne moo di honorable Mama Kandeh di rek eh, seen eh, ki nga xam ne eh, moo di njiital langue gi daal dina nag xamal képp koo xam ne rek bokk na ci langue gi moo xam ñi farandoo yi ñi nga xam ne ñooy supporter si ak ñi nga xam ne yi nag ñoo bokk ci langue gi maanaam militant si ak nag ñi nga xam ne soppe yi langue bi leen maanaam rek sympathisé yi ñu ngi leen di woo ngir rek ñu daal di xam ne ñoom ñi ngi ànd ki nga xam ne rek moo di candidate bu Euh, Meyo euh, Talib benn suda euh, ci KMC ñoom nag ci li ñu wax nag nee nañu ginnaaw ba nga xamee ni ñoom seen langue gi toog nañu xool gis juróomi at yi nga xam ne nag kii di Ahmed benn suda liggéey na ko ci rek bopp KMC gis coppite yu bari yoo xam ne indi na ko ci nee nañu nag dafa jekk yell ak i daadu ngir rek ñu daal di koy jox ñaareelu kay loolu nag moo tax ñoom ñu daal di ci rek taxaw waxtaan ci ngir rek daal di ànd ak ñoom jàppale ko ci élection yi nga xam ne moom lañ dëggal ci ci ñaar fukki fan mais ci weeru ci weeru ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett maanaam 2023 ci at mu ñu nekk nii le ñoom nag loolu lañ rek daal di xamle ñu teg ci itam na ginnaaw ba nga xamee ni jël nañ bile dogal ngir ànd ak ki nga xam ne moo di kii di Ahmed Talib Bensouda ngir jàppale ko ngir mu mën a faluwaat nee nañu nag politique nekk loo xam ne dañ koy def ngir xeet wala di ko def ngir ci langue kese waaye dañu wala di ko def ngir rek di ci xool lu ci mën a jëlee waaye nag dañ ko def ngir rek xool njëriñu askan wi ndax nag nee nañu euh, bu ñu euh, tegaatee euh, ki nga xam ne moo di Ahmed Talib Bensouda ci bopp kaw KMC dinañu gis ne ñi dëkk KMC wala ñuy yeewoo KMC dinañu rek gisaat seen bopp bu baax a baax ci loolu yi moo waral nag ñu daal ci dax teg seen loxo ngir rek fas yéene ko rek daal di euh, jàppale euh, ñoom it nag ñu daal di ciy teg ne ñi ngi daal di rek xamle ne bu baax ne euh, boo gisee rek ñu jël di décision boobu jëluñu ko ngir intérêt parti bi wala jël ko ngir intérêt kenn ci ñoom waaye nag dañ ko jël ngir intérêt wu ñi nga xam ne rek ñoo di KMC lépp ndax nag politique foofu la politique weesu na léegi xool sa bopp kese wala it xool sa langue kese waaye nag da ngay xool lan mooy jëriñ askan wi waaye nag waruñoo xool loo xam ne dafay féewale wala dafay doon loo xam ne rek xeet la moo tax nag ñoom ñi nga xam ne nag ñooy ñii di waa eh, ñi nga xam ne rek ñoo di GDC làng gi daal di nag jël li nga xam ne rek moo di Talib benn Bensouda ngir fas ne ko jàppale ndax nag nee na nañu booy tànn njiit doo rek xool ci li nga xam ne mooy xeet wala xool ci aw askan wala xool it ci ab langue waaye da ngay xool njiit loo xam ne soo ko fa tegee dina rek doon njiit luy taxawal li nga xam ne rek moo di gox ba loolu yi nag moo tax ñu daal di rek eh, teg fa ki nga xam ne moo di Talib Ahmed Bensouda ngir mu doon seen candidat bu ñoo xam ne moom lañ fas yéene jàppale eh, ci li ñu tëjee nag seen kaddu ci rek xët bi nga xam ne ñoom bind nañ ko eh, li ñu rek tëjee mooy nag ñi ngi daal di rek wax ñëpp ñu daal di rek xool ci li nga xam ne rek moom la Talib Ahmed Bensouda def ci juróomi at yu ñuy weesu ni le ci liggéey bi mu fi def ci KMC ak it nag li nga xam ne rek mooy juróomi at yi nga xam ne juróomi atu naataange la juróomi at yokkute la ci rek eh, ki nga xam ne mooy Talib Ahmed Ben Souda kon nag loolu yi nag jar naa tax képp koo xam ne yaa ngi yeewoo KMC nga war koo def mu doon sa candidat ndax nag moom moo ko yelloo ngir rek mën a doxalaat li nga xam ne rek moo di mbiru eh, KMC yi ci rek juróomi at yi ñu eh, dëgmal ci nile